ndajal mi ndaje mi ko waral maa ngi sant Cheikh Issa ak sëñ mi la ko waral dañu maa jiiñ tuuma dañu maa jiiñ tuuma tuuma bi ma woo responsable dëkk bi ak waa won leen carte grise yi nga xam ne nee nañu dama koo gaase loolu moo waral ndaje maanaam lu ma leen di tontu moom àgg ñu demee ba nga ñam dégg nga ah ba boobaa ma wane ne bee groupement bépp teg ko seen loxo waaye fii demuñu ba pare du ma leen tontu ci loolu. yi ñu ko toppal heure nañu ko toppale ndax maanaam man damaa ko gis mu mënoo koo jàpp ba élection yi ñu ne ay huit heures ci guddi nga fomm élection yi man loolu yaakaar naa ne erreur bu ko daal de bu ko bu mu ko waree def damaa war a woo mu war a am vingt quatre mu doog a fomm yi waaye toog am ni suba la huit heures ci guddi neuf heures nga woo kooka fomm élection kooku ba bu ko gis xam ne erreur erreur mun ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ma compte dama leen a bàyyi ne xool leen na ngeen ko bëggee na ngeen ko bëggee moo demee ko ñoom ñu ni mbind bii ñu bindu d'accord ci dañuy binduwaat binduwaat boobu ma nga ci kanam ak suuf ba ñu di ko bindaat kon ma yaakaar ne moom day daa xelal sa wartu la mën a taalibu Cheikh Sala foo ma fekk rek maa ngi ci confiance foo ma fekk ba dara amul sax ba dara amul ma maa ngi ci xam naa ne liggéeyal naa askan wi liggéey boo xam ne wóor na ma wóor yàlla damay toogaat fi bi ci yàlla ànd ak Cheikh Sala ak sëñ Mountakha kooku kon biir na ma damay toogaat bi ci yàlla la compte gi relevé de compte bi wane naa ko fi dañu fa waxal ci élection yi ba tey jii ma nga fa dara 15 millions 709 mille ma nga ca compte loolu moo nekk ci toog nii di wax loolu